لله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم inna allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaai di lqurba wa yanha can alfaxshaai walmunkari walbac yacidukum lacallakum tadakkaruun aaya juróom-ñeent fukk ci suuratu naxl borom bi subhaanahu wa taala di wax ne inna yaamuru dana digle bil adli ci maandu wal ak rafetal wa itaa dil qurbaa ak dikkal boroomuk jegeñaale wa yanha dana tere anil faxshaayi walis ñaawteef wal munkari ak lu ñu lu bon wal bax yi ak bew yàlla digle na ñett al adlu al ixsaan itaau dil qurba tere ñett al faxsha al munkar al bax mu ne yaidukum dana leen waar waare wi mooy ndigal ak tere yi mooy ndigal yi ak tere yi mi ngi leen di waar laallakum ndax le yéen tadakkaruun da ngeen waaru da fàttaliku jëfe ndigali borom bi daw ay tereem yii mu digle moo boole yiw yi yim tere yit mooy safaan yi maanaam yii mu digle fii ku ko def kenn mënatul laa gën ndax yiw yëpp a ngi ci biir ku ko ku bàyyi yim tere fii bàyyi nga safaan yëpp al adlu dañuy wax ne mooy istiwaau sarirati wal alaaniya nit ki góorgóorlu ba li muy feeñal ci ak njub ak ci mbaax doon li nëbbu ci biram lii feeñ ci moom ak lii nëbbu tolloo nañ nekkul di wor nit ñi di feeñal lu bokkul la ci biiram loolu àddulu la ixsaan mooy li nëbbu sax gën a rafet li nëbbu ci biram gën foofu li feeñ ci moom lim feeñal ci mbaax ak njub lim làmboo ko ëpp li nëbboo ko ëpp itaawu dil xurba mooy jokk ak mbokk jokk képp koo war a jokk boroom ak jegeñaale la ci jiitu mooy mbokk koo bokk ak ci baay wala ci yaay wala ci yaay ak baay yëpp waaye ku la jege ci leneen dëkkandoo sax jegeñaale la ndax dangeen ngeen jege dëkkuwaay ak ku la jege ci lum la mën a jege rek moo tax ñett ndigal la yoo xam ne ku ko jëfee rek diggante mook yàlla lépp macha allah diggante mook jaam yàlla yi lépp macha allah kooku mooy ki baax kenn mënatu koo gët ibnu mas'ud sayiduna abdullahi ibnu mas'ud ci saxaaba yi la bokk radiallahu anhu nee na hadihi ayatin fi alqurani li xayr هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتصل وللشر يجتنب nee na aaya bi ni mu boolee yiw yi ni boole boolee safaan yi tere leen amul beneen aaya bu ni mel ci alxuraan mooy aaya bi gën a dajale yiw yi ñu war a jëfee dajale ñaawteef yi ñu war a bàyyi kon yàllaa ngi digle awalan bil adl maandu mooy tax nit ki làmboo makaarimul axlaaq jikko yu tedd yëpp maandu ci diggante nit ñi ci diggante jaame yàlla yëpp ixsaan di rafetal jëmee ci ñaari waajuram jëmee ci ay mbokkam jëmee ci ay dëkkandoom jëm ci nit ñëpp jëm ci mbindeefi yàlla yëpp ba ci garab yeeg xayawaan yi du ci yàq du dagg garab gu mu amul soxla gum dul jariñoo du rey xayawaan bu lu dul lu mu soxlawoo daa nekk ci rëbb wala yu ni mel kon baat la yu dajale yiw yépp moo tax al adlu mooy tax nit ki doon ku tedd ay jikko makaarimul axlaaq yépp dajee fi moom mu doon ko maandu ci ay jëflanteem ak képp ku muy jëflanteel tàmbalee ci ña ko gën a jege ay juróom ay doomam ay sitam njabootu boppam ay mbokkam ay dëkkandoom ak ñi muy jëflanteel ñëpp ixsaan it kadalika rafetal jëmee ci ñi ko gën a jege ña ca topp ña ca topp ña ba rafetal jëmee ci mbindeef yépp yemul sax ci nit ñi waaye rafetal jëmee ci mbindeef yàlla yépp wa itaayi dil qurba boroom ak jegeñaale mooy aw askanam ay mbokkam nit ci ñaari bunt lay bokkee bara bari na ñu bokkal wetu baayam moo leen booleek ñoom mu war a rafetal jëmee ci mbokk googu bari na ñu bokkal ci wetu yaayam la léeg-léeg ñim bokkal ci wetu baayam mooy ñim bokkal ci wetu yaayam ndax baayam ak yaayam dañoo bokk aw askan. waaw kon jege ñaali gaa ngi noonu muy mbokk gi waaye yemut ci de ak ku la mën a jege lum la mën a jege. koy jëflanteel ci àdduna même bu ngeen bokkee liggéey sax dangeen ngeen a jege ndax yéen a bokk fii ngeen di liggéeyee bu ngeen bokkee aw yoon di tukki koy jëflanteel rek wa itaa dil qurba mhm. wa yanha dana tere anil fahsha walis ñaawtee fii fawaaxish faaxisha faxsha alquran tere na ko ci ay yu bari ma zahara min haa ma batan ñaawteef yi feeñ ak yu nëbbu yépp borom bi tere na ko wax na ne bu leen ko sax jege kon yàlla ngi tere anil faxsha walis ñaawteef wal munkari ak lépp lu ñu sib lu ñu fakk waaw saaboo boo def wala nga wax loo xam ne ku ko dégg xoolaat la ku ko dégg gestuwaat la ku dégg nga wax nangam wala mu dégg ne def nga nangam jaa loola da koy jaaxal xaaliban loola kar la lu ñu xamul la maaruuf lu baax mooy liñ xam li nit ñi miin di ko def ci lu feeñ kenn du ci nëbbatu ndax lu baax la ñëpp xam nañ ko munkar nag mooy loo xam ne moom fitra doomu adama da koy da koy sib da koy fakk da koy bañ yi ngay def di nëbbu yi ci ëpp ay munkaraat la ak yi nga xam ne boo ko defee nit ñi ne déedéet kay loolu nu mën a nekke buñ déggee na yaa ko def wala boo ko waxee ñu dégg yépp ay munkar la yooyu la yàlla di tere wal bax yi ak bew bew noggatu tooñ jalgati ci kaw nit bew nag ki koy def ñaare mooy boroom doole buur ndawal buur boroom alal wala ku am doole yaramam rek daje ku mu ëpp doole néegal ko doole yooyu yëpp alxuraan a nga koy tere bokk na ci yi gën a bon bokk na ci ñaawteef yi nga xam ne yàlla du xaaree mbugal mi ëllëg képp ku koy def dana la mbugal fii ci àdduna ba ñëpp xam ne mbugal na la nga door dem yomal xëyam fekk fa mbugal ma dëgg-dëgg mook dog ak mbokk bàkkaar lañ yoo xam ne mbugal mi musiba mi fii lay tàmbalee ci àdduna mu ngi noonu aaya bi aaya la boo xam ne ci ay xadis bi muy wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa booba Usmaan ibnu Mazun radiyallahu anhu ci teewaayam la romb na yonent baa ngi toog muy dem xool ko xool yi ku ko jëppi mel ni ku koy siiñ yonent bi ne ko tey nga ñëw toog déglu ma naka mu dem ci la aay bi wàcc yonent bi sigg xool ci asamaan yor melokaan ak jëf yoo xam ne bim mu noppee ndeke aaya bi moo doon wàcc ci moom mu dugg ci lislaam moom Usmaan ibnu Mas'uun mi nga xam ne bañ gàddaayee dem Madina maanaam maanaam ca Madina Munawara moom mooy ki ki njëkk denc ca baqiya baqiya armeelu madina yooyu mooy kañ fa njëkk jébbal boroomam aaya la boo xam ne ku ñuy wax ak sam ibnu sayfi ba mu jotee xabaar yi yonent bi sallallahu alayhi wa ne da koy seeti aw nitam ne ko yow yaay suñu kilifa yebalal ñeneen ñu la demal waaye doo dem am ñaar ñu jóg demal ko mooy leen bu ngeen demee déglu leen jëlee leen ci moom andil ma jëlee ci man yóbbul ko bañ demee laaj yonent bi ne ko man anta wa maa ant yow yaay kan ak yaay lan yonent ne man maay muhammad ibnu abdillah loolu mooy tontu man ant ne leen maay abdullahi wa rasuluh mooy tontul maa ant waaw man maay kan maay muhammad doomi abdullah maay lan jaamu bi yàlla laa yonantu bi yàlla laa ñaar ñooñu ba ñëwee ñu ne ko ah moom day laaj nañu ko askanam waaye bëggula yëkkateewu askanam maamam sax waxuñu ñu ko bàyyam rek la ñuy wax muhammad ibnu abdullah te loolu mënta ñàkk ci arab yi ndax arab yi diw doomi diw loolu moo taxaw taxawaayu sant ci ñoom arab yi amuñ ay sant njaay ak jóob ak juuf waaye dañ naan diw doomi diw mooy tax ñu xàmmee ko foofu yonentu jàngal na fa lu rëy ndax lañ doon puugare woo ak askan wi mu bokk moom muy Quraysh koo laaj yaay kan rek day sawar lool ci limam limal la ay maamam wax la askanam waaye mu ne ko rek maay Muhammad ibnu Abdillah ñoom nag ñoo laaj laaj kii ban askan la bokk nit ñi leeral leen ne ci waa Quraysh la wax ko ay ma wax leen ay maamam ne leen maay Abdullahi wa rasuluh daal di leen jàngal aaya bi inna allaha yaamuru bil adli wal ixsaani wa itaayi dil qurba wa yanha an il faxshaayi wal munkari wal baci yaidukum laallakum tadakkarun ñu ne ko waxaatal aaya bi ñu dégg yonentu waxaat bañ mokkal ko dem jot li ko seen kilifa ga ka leen yónni woon mooy leen ah kii day mbiram mi ni ma ko gisee nekk leen ci ay bopp waaye bu leen ci nekk ay geen bokk leen ci njëkk wuyu ànd ak moom kunu fi hada al ru'uusan ay bopp wala takunu aznaaba bu leen ci doon mukk ay geen bu leen bu leen mujj wuyu allahu akbar mi ngi noonu moo tax borom bi ci baat yu gàtt yi matale na leeral na léppi mbaax waaye tere na léppi safaan lépp luy ak mbaax rek aaya bi digle na ko lépp luy ab safaan aaya bi tere na ko hmm. inna allaha naka yàlla yaamuru dana digle bil adli ci ak maandu wal ixsaani ak rafetal maandu diggante képp koy jëflanteel rafetal ci mboolem mbindeef yi wa itaay dil qurba ak dikkal borom jegeñaale di jóg di jokk mbokk di ànd ak mbokk yi ci seen xew-xew yi mbégte yeeg jàmm yi di ànd ak ñoom ci xew-xewu tiis yeeg naqar yi di ko bokk ak ñoom di dund la leen di metti di la métti la leen di bégloo di la bégloo di dimbalanteeg ñoom di rafetal ci say wax ak ci say jëf wa yanha dana tere an il faxshaai wal munkar wal baxi xeeti ñaawteef yépp ak xeet yu yu ñu sip yu bon yi ci wax yeeg ci jëf yi yu feeñ yeeg yu nëbb yépp wal bax yi ak bew jalgati li buur yu bari ak ndaw yi buur yu bari ñiñ dénk palteef ñu bari di noggutu askan wi ngir ñoom lañ fal ñoo am doole ñoo ñoo yor ngànnaay rawat na ñi nga xam ne ay takk der lañ te ragaluñ yàlla di noggutu ay nit ñi doon ay àttekat te ragaluñ yàlla di tëjlu ay nit di dóoru ay nit di yàqal liggéeyu ay nit nangu seen alal di folle ay nit di leen dàq seen barabu liggéeyukaay ci lu amul benn sañ-sañ ngir da koo bëgg a toroxal da nga koo bëgg a sonal da koo bëgg a loolu laa wax ne bàkkaar la yoo xam ne képp ku koy def fii ci àdduna la la yàlla di duma wal bax yi bew yaidukum dana leen waar laallakum ndax le yéen amaana yéen tazakkaruun ngeen fàttaliku tazakkaruuna ngeen waaru wa fu matal leen bi xahdillaahi ci kóllëreeg yàlla kóllëreeg gi ngeen seq ak yàlla kóllëreeg gi ngeen fas nit ngir yàlla na ngeen koy matal wa awfu bi ahdillah wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula moo tax fasante kóllëre lu rëy la bési nga ñëw ñaar ñu fasante woon kóllëre ñu ne yàlla laaj leen kóllëre naka lañ ko sàmmee woon kóllëre gi jiitu ci kóllëre yi nag mooy gi la booleeg yàlla sa borom kóllëre dugg ci lislaam dugg ci lislaam mooy lan mooy dangaa weddi xërëm yi weddi lépp loo xam ne ak neen la weddi taaxut gëm yàlla sa borom seede ko ci saw làmmiñ ashhadu an laa ilaha illa allah seede risaala ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ashhadu anna muhammadan rasulullah gëm ne ku yàlla yónnee ngi gëm ne téeréem bi mu indi ci alxuraan muy alquran ci yàlla la jóge gëm xabaar yi mu indi yépp xabaaru yonent yi ko jiitu woon ak téere yi ko jiitu woon xabaaru malaayka yeeg bés penc dogal yépp nga gëm ko loolu kóllëre la takk takk la buum la gu la jokk ci sa borom subhanahu wa taala na nga ko sàmm wa awfu bi ahdillah mu fassiru yi dañuy firee ci xamdullahi lu muy lu muy tekki fii waaye daanaka yiñ ko firee yépp rek yëpp la muy kóllëre gi la dugal ci lislaam baat boobu ba nga ko tuddee la ca topp mooy di jëfee ndigal yàlla bàyyi ay teram di góorgóorlu ci lépp lu yàlla digle lépp loo xam ne ak mbaax la daw lépp loo xam ne ab safaan la tàmbalee ko ci faratay rawat na ponk yi ak yiwu yëpp kon kóllëre gi la jokk ci sa borom kóllëre gi la jokk ci yonent bi war koo topp di jëfee sunnaam kóllëre goo faslanteeg beneen jullit bu mën a doon topp ca nanga ko sàmm bul wor kenn wor ci naa naafeq la bokk ida xaddasa kadab wa ida waada axlaf wa ida tumina xaana buñ la wóolu dénk la fal la wala ñu jox la alal sàmm loola nga dugal ci ak wor boo weesoo lool kon kóllëre gi digganteeg sa borom yonante bi jullit boo fasanteel kóllëre waaye kóllëre ak jëm ci mbindeef yëpp nit ña ba ci ab yéeféer boo fasanteek moom kóllëre boo signéeg moom nangam na nga respecté loola def ko ba mat yow mi fasanteeg ku dul jullit ba noppi dem def la neen yaa ngi bokk ci gàllankoor lislaam ndax loolu day tax ki ngay jëflanteel day xeeb sa diine am na melokaan wu baax wu màgg wu tedd woo doon jëflanteek moom rek mu xam ne kii li ko tënk ba muy defee nii li ko meloo nii loola lu rëy la loolu mën naa dugal nit ci lislaam waaye bu safaan ba amee rek yaa ngi tëj bunt lislaam ci kanam jaam yàlla yi kon wa awfu bi ahdillah gépp kóllëre goo fasante ci àdduna rek muy kóllëre rek dugg ci diine ji war a taxawee ndigali diine ji bàyyi tere diine ji kóllëre goo seq ak nit moo xam jullit wala kudul jullit rawat na nag da nga koo fasante ngir yàlla danga tudd yàlla ca fas ga na mat kon wa aw foo matal leen bi ahdillaahi ida ahadtum bu ngeen kóllëre wante wala tanqudu bu leen di firi min naqada yanqudu bu leen dajji bu leen firi al aymaana ngëñ ya baxda tawkiidiha gannaaw ak feddleem bul fasante kóllëre sax gëñ ba noppi dem def leneen lu dàqwante la nga gëñoon firi nga gëñ ma waaw kóllëre gi même bu ci ngëñ amul wax ju dëgër da ngeen di waxante rek mu ànd ak fedd li mooy taxaw taxawaayu ngëñ rawat na bu ci ngëñ amee wala tanqudu bu leen firi alay maana ngëñ ya baxda tawkiidiha ganaaw ak fedd leem loolu nag bu ci déggee ne saa boo gëñee ci dara rek faaw sañu doo caa dellu gannaaw yonent bi noonu na duma gëñ ci dara gis lu ko gën lu dul damay dem ci la ko gën kafaara ngëñ ma la nga gëñoon ne danga ko def waaye gannaaw nga gis ne def gi gënul ñàkk gi dafa gën sa diggante yàlla wala la nga gëñoon ne doo ko def te muy lu baax ah gannaaw nga yedd si bopp xam ne ah def gee gën bul ne gëñoon naa jeex na demal nga kafaara sa ngëñ te def ci dem ci lu baax la Seydina Aboubacar mere na mel na mbokkam mu néewoon doole moom daan dimbale ca xaadisatul ifki bañ tuumaale sunu yaay Aïcha radiallahu anha mu bokkoon ca ña wax wax ja Aboubacar mere ko ne dootu ko defal dara alquraanu wàcc mu dellu ginnaaw di ko dimbale nu raw na mu ko doon dimbale alaa tuxibuuna an yaxfira allahu lakum moom la yàlla wax ca wala yaatali ulul fadli minkum wa saati an yuutu ulil qurba ila axiril aaya kon wala tanqudu bu leen bu leen firi al aymaana ngëñ ya al aymaan mooy jamu al yamin baxda tawkiidiha gannaaw feddleem waxat jaxaltum te mbir moom def ngeen allaha yàlla kafilan muy garante aleykum rawat na nag ba ngeen di fasante kóllëre da ngeen a ci yàlla yàlla ga man ne da yàlla da ngeen a seedaloo yàlla garantloo yàlla kóllëre gi waaye waaye sàmmu leen kóllëre yi nit ku baax day am kóllëre inna allaha naka yàlla mu dana xam maa lépp loo xam ne tafaalun da ko def wala takunu bu leen nekk mukk kallati mel ni jigéen ja nga xam ne naqadat firi na xaslaha ak rabbam xaslaha këccam min baadi quwatin gannaaw ak dëgër an kaasan mu doon ay ruusit mais nañ benn jigéen la bu nekkoon màkk mën a ràbbu lool xaslu jigéen ñi dañuy jël ay sër jël ay wëñ kon di ko ràbb mu doon ay sër wala ay darab ak yu ni mel këcc këcc lañ koy wax ci wolof léegi nag jigéen jooju moom da ko mënoon lool waaye kenn xamul lu ko dal bu ràbbee ba ñëpp ne askay mu firiwaat ko noccuwaat wëñ yëpp mu doonaat ay ruusit kooku mu ngi sànk ay waxtoom def lu baax ba noppi yàq waaw loolu mu fassirun yu bari nee nañ jigéen ju meloon noonu la ñëpp xam ko ci loola waa mag xam ko mu siiw ci loola ñu naan moom dafa dof moom daal amul xel yàlla ne bu leen waaye waaye bu leen mel ni kooku loolu mooy lan nit ñaa ngi koy def de di def lu baax def lu baax def lu baax est que nga wax benn baat wala nga jëf benn jëf bu màbbu mbooleem lu jëf ju baax ja nga jëfoon yàq nga la nga defoon yépp ngistal day dugg foofu waaw jëf ji lu mu rëy rëy comme jëfoo ngir yàlla anta kallati naqadat xaslaha min baadi quwa yaa ngi mel ni kooku ràbb ba ñépp ne macha allah mu firiwaat ndéggatal lu baax la nga jëfoon ngir yàlla yàlla xam na wax ko ngir kaneen roy la ca loolu aw yiw la waaye wax ko ngir bëgg ku la yéem ku la naw nag loolu mooy uxtu riyaa moo ngistal sumaatoog riyaaw ñoo bokk ndey ak bàyyi day yàq jëf bokkaale day yàq jëf la in ashrakta la yaxbatanna amaluk kon jëf ju baax ba noppi nag mabbaat sa jëf jee ngir da ngaa bokkaale yàlla wala da nga doon ngistal ci jëf je wala danga nga caa ndéggatal wala danga ngaa xoj bu da ngaa naw sa boppu yëpp day yàq jëf firi nga màbbu nga la nga tabaxoon yëpp bu leen def noonu kon wala takunu bu leen nekk kallati mel ni jigéen jooja nga xam ne naqadat firi na xaslaha këccam lam raboon min baxdi quwa gannaaw ba mu ko rabbee ba mu dëgër an kaasan mu doon ay ruusit tabax bi boo ko tojee ba lépp toj mabbu tasaaroo an xaab ay tojit lay doon bu dee lu mel ni ay létt moom nga firi wala malaan gi moom nga dindi wëññi nocc ko wala am ñaxla yu mel noonu duñu wax anqaad waaye ankaas lu mooy nag waaw dañuy wax intakasa firee fi rawanci ko na rawanci ko na wala fireeku na intakasa intikaas bu leen mel noonu tattaxiduuna da ngeen jàpp aymaanakum seeni ngëñ daqalan muy ak wor bay na comme seen diggante am na ñu bari ngëñ lañu def muy seen ngànnaay lu ñu wax gëñ loolu sax dooyee di la bokk yow góorul ba ñépp xam la ci dëgg boo waxee jërul ngay gëñ dañu xam ne yow doo wax caaxaan waaye am na koo xam ne balaa ñuy gëm la mu wax foofu mu gëñ ndax xam nañ ko cig neen kooku jikkoom yàqu na ku sàggan ba xam wóor na la yow xam nañ la cig neen loo gëmul kenn du loo gëñul kenn du ko gëm ba loo wax gëñ wala tuteex kulla xallaafin mahin gëñ jërul tàmm jërul bari amul solo rawat na ko mel noonu bu yàggee sax day gëñ dootul tax ñu gëm ko gëñ dootul tax ñu gëm ko waaw parce que nit bu ñemee yàlla nit bu xolam dundul dëgg dëggi dundu gëñ ci lu dul dëgg du dara fi moom ñenn ñi sax dañuy téye kaamil bi naan maa ngi gëñ ci kaamil beek wala nañ ma indi kaamil ma gëñ mel ni kaamil moom dara la ci ngëñ gëñ ci lislaam soxlawul kaamil soxlawoo woo kaamil bokku ci gën ci lislaam mooy billahi alladi laa huwa billahi wallahi tallahi maa ngi gën ci yàlla yu mel noonu faw ñu waxaale it nag ne gën ci lu dul yàlla xaram na moo tax faw rek ñuy gën ci seeni sëriñ nañ ko bàyyi te xam ne loolu ci bokkaale yàlla la bokk wax nañ ko ay yoon gëñ mooy loo yàlla waaw ba nga neen fee ma demoon démb nangam ak nangam xew na fa comme yow rek fa nekkoon ñun demuñ xamuñ lu xew ñu ngi sikk sàkk wala wedd nañ la nga ne billaahi noonu la demee loolu mooy lan mooy yàlla mi nga xam ne moom mooy aalimul xaybi wa shahada yàlla mi dara umpul yàlla mi wuutewul fenn teewee na xam na ne mbir mi nii la demee léegi ba nga bàyyee yàlla nag ne barka mbay mi mbir mi noonu la demee yaa ngi bëgg a gëmloo ne kon mbay moom daa teewee mbir ma wala moom wala moom foo moom mi ngi fépp loolu yaa ngi laal bunta bokkaale moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadis yu gër dafa tere gën ci lu dul yàlla arab yi lañ daan gën a gëñee mooy ci seen i baay mu ne leen inna allaha yanhaakum wa an taxlifu bi abaikum kuy gëñ na gën ci yàlla wala mu noppi ku gën ci lu dul yàlla bokkaale nga ay aymaanakum daxalan mu nekk ak war baynakum an takuna ci nekk ummatun aw xeet hiya moom arbaa moo ëpp moo gën a yokk min ummatin ci beneen xeet moo ko ëpp ci ab lim wala moo ko ëpp alal wala moo ko ëpp daraja waaw ca jamono jooja te ba léegi mi ngi am li ñuy tuddee ay taxaaluf waa dëkk bi waa giir gi dañoo taxaaluf ak beneen giir ci ñooy bokk ay noon bokk ñu ñuy jubóol ku dal ñun di xeex ak ñun parce que ñoo taxaaluf da ngay ñëw nga xeex la ñu kuñ song war laa xeex it ñoo taxaaluf da ngay ñëw ànd ak ñun ñu xeex ko ku dal sa yow it ci ci yow ñu ñëw jàppale la léeg giir bi taxaaluf beneen ba mu yàgg ñu yëg ne ñun ñii ñu taxaaluf dañoo noonoog ñoom diw te ñoom diw ëpp doole wala ñoo ëpp alal ñoo gën a bari ñu firi kóllëre gi ñu fasante woon ak ñii ngir mën a jokkoo jeeg ñële loolu la yàlla di tare kilo yàlla booleel ba nga kóllëranteeg moom jàppal kóllëre gi mu dëgër ngir yàlla bu la benn intérêt benn intérêt di di yàqal ak kóllëre loolu ci ak wor maanaam bu bu la dara jaral ak wor daal bëgg jokkoo keneen bëgg ànd ak keneen bu mu tax nga wor ka nga ànduloon démb moo tax mu ne bu leen jàpp da ngeen jàpp seen ngëñ yi mu nekk ak war bay na kom an takuna ngir nekk na ummatun aw xeet hiya moom arba moo ëpp minu matin ci beneen xeet innama yablukum na naka dana napp leen allahu yàlla bii ci loolu wala yubayyinanna yàlla dana leeral lakum ni leen yowmal xiyaamat bés penci maa lépp loo xam ne kuntum nekkoon ngeen taxtalifuuna di wuute fii ci moom wala shaa allahu bu neexoon yàlla la jaxalakum mu def leen ummatan waaxida ngeen di benn xeet bu sooboon yàlla ba mu bindee nit ñi mu def ñoom benn istidaat daanaka ñëpp bokk lu ñuy bëgg bokk lu ñuy bañ ñëpp juboo doon benn xeet ñëpp bokk benn diine duñu wuute ci dara bu sooboon yàlla mu def loolu de waaye xikmaam xikma bi taxoon mu bind mbindee fi bàyyi leen ci àdduna bi bu boobaa xikma bi day dàqu moo tax yu dellu day réeral day jàppandal yoonu réer man yashaaw ku dana ko soob mooy ku namma réer wayax di day jubal day leeral yoonu njub man yashaaw ku ko soob ci ku bëgg a jub xikmatullaahi moo bay mi ndeefi ñuy tànn ñenn ñi tànn ab safaan dem ca texe di ga ñenn ñi tànn yoonu jub bi nekk ci texe gi wala tusalun na te def na laaj leen amma walis lépp loo xam ne kuntum nekkoon ngeen taamaluuna di ko jëf li ngeen doon def ci àdduna bul bul fi def dara lu dul na nga bàyyi xel ne bés nga ñëw da nga tontu ci ci sa kanam borom ci sa jëf ji wala tusalunna amma kuntum taamaluun doonte lu toll ni fatiila naqiir la xitmiir la jarul xeeb bu dee lu baax jërul xeeb alhamdulilah bu def safaan bul ko xeeb ba ne lii garaawul li nit ñi wax léeg lay xew am ceet ga wala ngént ga ñu bëgg tëgg bëgg a fecc bëgg way jaxase ay góor ak jigéen bakkaar yi dul jeex naan benn fan laag yomb naa mu ñekk yu ni mel ëpp na yendoo mooy yàlla fanaanoo mooy yàlla ëpp na jéggi na dayo yow bu doon safara la ñu la dugal benn fan la garaawul ndax mën nga koo muñ benn seconde mënu koo muñ ci safara bëgg a muñ yàlla lu toll ni ab bëccëg yépp moo tax borom kër yi faw ñu xam ne ay jullit lañ bu xew amee ci kër gi xew wi na ci li yàlla ak yonent bi gërëm xew du daganal mooy yàlla amul benn xew buy daganal nañ mooy yàlla moo tax xew yu bare bari boo seetee daanaka dem ga rek ngir na muy bindoog la fay xew dem gi rek xaw naa xaram mu fetliwaat li mu waxoon wala tattaqidu bu leen jàpp aymaanakum seeni gëñ daqalan muy ak lan wor baynakum fa tasilla tarxiis xadamu ndëggul tànk baxda subuutiha gannaaw ak saxam bu leen jàpp seen gëñ yi muy ak wor kom niñ ko waxee woon léegi mi ngi gën a fedd li kon kóllëre ak niñ ko war a jàppee ngeen yi def leen ngeen di tarxiis di daanu tànk bi tarxiis daanu gannaaw boo xam ne taxawoon na wata zuuqu ngeen di mos a suu a ñaawteef mbugal bi ma ci saw mos la nga xam ne sadatum dëddu ngeen ko an sabilillahi wala sadatum dëdduloo ngeen ko ñeneen an sabilillahi wër si yoonu yàlla wala kum ñeel na leen adaabun bu ngeen defee loolu am ngeen mbugal moo xam ne azimun mbugal mu rëy la ndax da ngeen a dëdduloo jaami yàlla yi njubug yàlla yi hmm. ibnu kasir ci tafsiram day wax ne koo xam daa nekk ci ak njub di góor góorlu ba mu yàgg mu xëy xëy rek sàggan gaañu léeg la ñu def ko de xam koo xam ne ma ngay góor góorgóorlu ma ngay jombale boppam safaan yi ma ngay taxaw ci farata yi ci naafile yi ma ngay góor góorlu waaye xëy xëy rek baxandi ko dellu melaat melokaan wu doy waar wu jéggi dayo nekkaat ca la ko neex wal iyaadu billah ku sampu taxaw ne day woote jëmee ci yàlla day jàngale lislaam day waxtaanee lu baax xëy xëy baax nekk ci yeneen nekk ci am po tëgg ak fecc ak ay caaxaan yu jëmul fenn fa tazilla baax da subutiha wa tazuqu suua bima sadattum an sabilillah hmm. rawat na nag yow miy jëflante ku dul jullit moo tax muy wax fii ndax bu boobaa yaa ngi koy xeebloo lislaam ñu baree bari lislaam fi mu yegg ci àdduna tey ñu bari li leen dugal ci lislaam mooy jëflante bu rafet bu jullit ñi daan jëflante ay commerçant yu daan bàyyeekoo ci réew lislaam yi dem ci yeneen réew wane fa ak maandu ak njub dëggu fonk seen diine kenn du leen gis ci benn caaxaan dañuy laaj waaw yéen moom yéen moom macha allah bi lu tax ngeen mel nii ñu ne nun tey dañoo nekk ci diine ju tudd lislaam moo xaraamal ci ñun nangam sañu ñoo wax la dul dëgg sañu ñoo jël luñ moomut duñu tooñ ku ñu tooñ dañ lay jégal li fekk ñu ngi koy man loolu xemem loo ñu bari lislaam bañ dugg ci waaye bu jullit bi sàgg fu fuñ fu fuñ wootee am pox moo njëkk fu ñuy naano sàngara ñoo fa ëpp fu ñuy mooyee yàlla ñoo fa gën a bari bu dee senegal la njombe yu bari yi ngay dégg ñi koy def ñi ci ëpp ay jullit lañ waaw loolu nag tekkiwul ne ñeneen ñi dañoo gën jullit ñi ci ay jikko déedéet dañ fee bariwul boo demee ci réew yi gën a bari it ñaawte fa fay xew yàpp yi ca ëpp ci ñoom lay jógee moo tax ñëpp war a seetaat seen bopp wala tashtaroo bu leen jënd bi ahdillahi kóllëre yàlla samanan xalila waaw ah, bu bul jëndee kóol rek yàlla googu njëg goo xam ne gu néew la te loo ko jëndee rek moom saman xalil la ak lu mën a doon nag bu la dara jaral bàyyi lislaam waaw ku la gaaraloon ay milliards yilif àdduna ak li ci biiram murtadal bàyyi lislaam tañ fan la nga jiite senegal jiite Afrique jiite àdduna yëpp ñëpp di la déglu jaru ko saman xalil la ci xaxdulaahi bii di lislaam wala tafsiru bi xaxdulaahi samanan xalila lu bon lu leen nit bëgg a defloo ak lu mu la man a fay saman xalil la nañ la fay nangam ngir nga yàq deru diw taskatu xabaar yu bari ay nit dañ leen di neexal ñuy di leen yàqloo ay der ñuy bind ay safaan di wax ay safaan ci kaw benn société ci kaw benn nit lu ko jar ak lu ñu la mën a fay saman xalil la te bokkoon na ci axdulaayi ab jullit du tooñ di yàq ab deru mbokk jul dem di wax ci moom safaan wala tashtaru bi axdillahi samanan qalila innama indallahi naka la ne fa yàlla huwa xayrun lakum moo léeg moo gën ci yéen de in kuntum taalamun luñ la mën a gaaral ngir nga wàcc aw yoon lànkal bañal ngir yàlla xam ne la la yàlla dencal ci texe xayrun lakum moo gën ñel leen in kuntum bu ngeen nekkee taalamun di xam te maa loolu nga xam ne indakum mi ngi fii yéen alal jooju ngeen yor ak nu mën a toll fa fadu day lan jeex wa maa indillahi la fa yàlla nag baaxin day def ba faw moo tax boo bëggee noppalu li nga yor def ko ci yàlla rek waaw comme li nga yor amul solo day jeex la yàlla mooy des li def ko fi yàlla rek boo defee fa yàlla rek mooy des yonent bi sallallahu alayhi xëy na bés rendi benn gàtt ci këram di joxe daggali yóbbul kër diw daggal daggali joxel diw di joxe joxe ba mu def benn tànk sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha téye ko ne ko lii nag moom dañ koy togg ci kër gi joxe nga lépp lii rekk ci des yonent ne ko déedéet li euh, maanaam lii lii rek moom mooy li dem liñ joxe lépp des na lépp des na ba mu des lii rek lii nga ne moo des moom rek a dem lañ joxe lépp fi des ndax lañ koo joxe ngir yàlla allahu akbar xaw ma xam nga li mu wax wala déet ndax lépp da koo dépensé ngir yàlla kon maa indakum yanfadu wa maa inda baaq yow lu la yàlla may bu dee alal la dépensé ko fi yàlla gërëm koo ci mën a dimbale dimbale ko ngir yàlla bu dee xam-xam la noonu la bu dee nguur la noonu la bu dee doole la xel mu rafet la lu la yàlla wërsëgal rek xamal ne maa indalaay baaxin nga def ko ci yàlla wala najziyanna ñu fay alladina ñi nga xam ne sabaru muñ nañ ajuróom seenu fay bi axsani ma ca gën gaa rafet la nga xam ne kaanu nekkoon nañ yaamalu na di ko jëf nee na ñii muñ te waxoon nañ ko mbooleem jaamu yàlla yi da ngay muñ mooy tax nga man ko yaa ngi nii woor loola tax a mën a woor muñ di mar di muñ di xiif di muñ ngir yàlla yàlla dana la fay ba nga xam ne yàlla rek mën a fay koor gi boo xamoon la la yàlla dencal ci bu fay booy la bu dog jotee continuer lu waraat ba suba tax nga continuer wala najziyanna alladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kaanu yamaluun du woor rek asaka mu ñëwee tax nga xam ne lii moomoo ko danga ko war a joxe nga joxe ko ci ni ko yàlla bëggee jox ko ñi nga ko war a joxe ngir yàlla te génn ci kenn du génne asaka denc ko di ko jokkee ak mbokk ak di ko dimbalee denc ko di xaar ku la sàkku ndimbal denc ko di xaar ku la indil ordonnance ah, ak di ko di ko defaat ci sa mbokk yu jege lool yoo xam ne alal jële nga yor mu lew la bari ëpp say soxla ci nga leen waroon dimbale moo tax dëgg-dëgg asaka moom ñu bari daañ ko génnee waaye ndax ñu ngi koy joxe déedéet te yàlla waxul génnee asaka waaye joxe joxe asaka la wax joxe ko fa nga ko war a joxe comme ni nga xamee ne jaamu yàlla yi mu ñëw tax nga def ko mooy yàlla yi mu ñëw tax nga bàyyi ko ñu bari daa neex ci seen xol teew ca garam place ba ñuy tudd ay nit di leen jëw di wax ci seen biir di wax ci ñoom safaan ñuy xàqataay loolu dafa neex muñ mooy tax nga mën a bàyyi jotaay yooyu ma majaalis shaqaawa jotaay yi nga xam ne bàkkaar dong nga fay jëlee jotaayu seetaan lu bon ca tele ba ca portable ba ca ordinateur ba jotaayu sànq ay waxtu ci neen di faat ay farata muñ mooy tax nga mën koo bàyyi lu la war rek bu jotee nga nekk ci bu jàng jotee yaa ngi jàng bu julli jotee yaa ngi julli bu noppalu jotee yaa ngi noppalu bu nelaw jotee yaa ngi nelaw kii liggéey ba sonn dajale alalam yow nga xëy bay na ashiyatin wa duxaaha nga dem sàcc wala nga agressé jël ci moom ay million yu bari loolu lu neex la ci bakkan muñ mooy tax nga xam ne lii jaaduwul baaxul ak loo jekku-jekku loo moomul ba ko fa alali jàmbur ba fa ak loo ko jekku-jekku nag bu la wóorul ne mën nga koo jël muy alal ju bari te kenn du la xamit yàlla xam na wala najziyanna alladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamaluun yàlla ne man amila ku jëf am jëf ju baax min dakarin moo xam góor la awun saa wala jigéen la woo te fekk ba muy jëf moom muuminun ku gëm yàlla la fala nuxiyannahu daañ ko dundal xayaatan dund tayibatan bu teey fii ci na dana dund dund bu baax rawat na ëllëg yowmal xiyaam wala najziyannahum daañ leen fay ajrahum seenu yool bi axsani ma gën gaa rafet la nga xam ne kaanu nekkoon nañ yaamaluuna di ko jëf aaya bu tedd bi yàlla day wax ne képp kuy jëf góor nga wala jigéen nga ñooyam na jëf ja baax rek man amila saalihan jëf ji moom na baax ki koy jëf min dakarin aw unsaa na doon góor wala na doon jigéen benn la waaye nag wa huwa muuminun fekk ma nga gëm yàlla am na ñu dul ay jullit dem ci ay dëkk di leen tabaxal ay fajukaay di leen bënnal ay teen di leen may alal di leen dimbale jëf jooju ndax dañ leen jariñ bu leen jariñut fii ci àdduna ëllëg yowmal xiyaam moom sero walladina kafaru amaluhum kasaraab comme njoloo rek kasaraabin bi qiatin yaxsibuhu zamaanu maa kon kii jëf-jëf ju baax jëf ji jariñ ko mooy wa huwa muumin fekk mi ngi gëm yàlla dafa am ay charte yuy tax yàlla nangu jëf ak lu jëf baax baax na ñetti charte la ba ci njëkk mooy jëf ji na dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu beneen bi mooy jëf ji jëf ko ngir yàlla wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu diin qul illaha abudu muxlisan lahu diini ah ñetteel ba mooy fekk yow mii jëf nag yaa ngi gëm yàlla yaa ngi am pas-pas bu wér lii mooy tax yàlla nangu jëf kon man amila saalihan min dakrin aw unsa wa huwa muumin fala nuxyiyannahu jeexiti jëf ga dana gis njariñ ci àdduna ndax mi ngi dund xayaatan tayiba dund bu teey même bu amul alal moom mi ngi dund xayaat tayiba bu amee alal bu amee wér-gu-yaram ak bu ko ñàkkee bu fanam gàtteeg bu guddee bu faloog bu faluwul buñ ko xamee buñ ko xamul moom ma ngi dund xayaat tayiba di xaar nag dëgg-dëgg fay ga muy wala nag ziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yàlla ne fa ida qarata boo jàngee alqur'ana fastaid na nga muslu billahi min asheytaani ci sheytaan arrajim ka di kun jam audu billahi min asheytaani arrajim loolu mooy lan fa ida qarata alqur'ana fastaid billahi min asheytaani arrajim mooy lan mooy bala ngaa jàng alqur'an nga wax audu billahi min asheytaani arrajim siiw na ci dégg woowu te mooy dégg nu wér donte am nañu wax ne yàlla li mu wax mooy fa ida qarata boo jàngee alquran ba noppi saa boo jàngee ba noppi nga xam ne pare nga waxal audu billahi min ashaytani rajim am na ñu ko firee nii de fa ida qarata alqurana mooy boo jàngee alquran ba pare fastaiz billahi min ashaytani rajim ngir lan jàng ba noppi léegi nag muslul yàlla ci seytaane mu ngir mu musal la ci seytaane bañ laa jax-jaxee ba yàq sa jëf di la nawloo sa jëf ak di la xeebloo ñeneen ak yu ne mel noonu waaye nag dégg nu wér mooy fa ida xarata boo nammee jàng alquran ndab li bala nga koy def raxas ko ba mu set raxas ko mooy wax la audu billahi min asheytaan rajim musul yàlla ci seytaan yi mu bañ laa jaax jaaxee ci sa njàng bi nga mën a jàng-njàng mu wér mën a teewlu di jéem a xam maanaa yi ngay jàng la nga ca war a jëfee it nga di ko jëfee la nga ca war a moytu nga dëj ca moytu la nga war a fàttaliku di fàttaliku di waaru kon fa ida qarata al qurana ah boo boolee ñaar ba tey mu baax de bala ngaa jàngal quraan ba ngaa jàngal quraan musul yàlla ci seytaane aoudu billahi min asheytaan boo jàngee ba noppi musul yàlla ci seytaane innahu naka seytaane laysa lahu laysa lahu de di ko sultaanun kattan sultaanun ngóor amul benn sultaan ala alladina amanu ci ñu gëm waaye tawakkalun te ñuy sukkandikoo ala rabbihim ñi gëm yàlla dëgg-dëgg doyloo yàlla di ko sukkandikoo seytaane mënut ñoom dara mënul leen a nax mënul leen a jax-jaxee ba yàqal leen dara innama sultaanuhu na ko ak nguuram ala alladina nekk na ci ña nga xam ne yatawallawnahu dañ ko méngoo waaw sultaan gii nag jubluwuñ ci doole ju seytaane di forcer nit ki defal nangam wala ma rey la wala ma nangam la waaye mooy foo ci am xelam rek jax-jaxee ko ba sàgganloo ko def loo ko lu bon bàyyi loo ko lu baax lu mu waroon def sultaan googu moom seytaane mi ngi ko am rek alal ladina ci ñi nga xam ne yatawallawnahu danañ far ak moom danañ méngoo ak moom ñi koy topp ñii dellu ci moom walladina ak ña nga xam ne hum ñoom mushrikuuna way bokkaale lañ bi ci moom bari na ñuy tudd yàlla sax yor seen kurus ñeme tudd yàlla lool di tëju di xalwa waaye bàyyi turu yàlla yi fii di jëfandikoo ay turu jinne ay rawxaan ay xuddaam ay turu seytaane ngir lan bëgg alal bëgg nàngam yooyu musiba la ab jullit buy tudd na tudd yàlla boroomam booy woo wool sa borom ñaanal yàlla sa borom moom mi wax ne woo leen ma ma wuyu leen ñaan leen ma ma may leen ne yonent bi bu la sama jaami laajee nde leen ku jege laa ku ma ñaan ma may la ujibu daawata daai waaye nag isaa daani na fekk mu ñaan ma ca yoon woowu mu war a ñaanee kon fal yastajibu lii wal yuminu bii waaye tur yeneen yeeg yeneen yi bàyyee ko ñeneen ña waaw ñu mel noonu nag ñaare rek leen nekk ca xalwa am lu ko feeñu am xelam dem dara na nga romb dof buy taxawalu te la ko dal ma nga jógee ci ay turi nangam yu mu doon nangam ak yu ne mel moo tooñ boppam de <clears throat> innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu walladina ak ñi nga xam ne hum ñoom mushrikuuna way bokkaal lañ bi ci moom wa ida baddal naa bu ñu weccee wala ñu taxaw ci innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu walladina hum bihi mushrikuun muy aaya téeméer ci suurat naxli sadaqa allahu alaliyu alazim